asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi ñoo ngi am di leen nuyoowaat fii ci kër Serigne Touba Xaadimu Rasuul gi ne ci jumaa ji di fi nga xam ne moom la Cheikh Abdoul Ahad Mbacke woon ngir képp ku fi nekkal sëriñ Touba muy barab bi ngay liggéeyale Serigne Touba loolu nag xam nga mbokk yi Serigne Salihu Mbacke Xaadimu Rasuul tànnoon na daa fi gàmmoo si ba jamono xat. mu tànn doomam di taalibeem di sëriñ Amsatu Mbàkke mu Cheikh Abdoul Ahad wax ko ne ko damaa bëgg ngay gàmmoo ci kër sëriñ Tuubaa gi te jàppe ko ne mooy sama gàmmu loolu nag sëriñ am Amsa di ko wootee jamono jooja ba agsi tey jii ci jamonoy sëriñ Tuubaa Cheikh Mahamadul Muntaxa yàlla na ko fi suñu borom yàggal lool te dooli ak wéram sëriñ Muntaxa ne ko kon jàppal ne loolu mooy sunu gàmm ñun ña ñun ñëpp di tànn di ñëw fi moom di ko ci wétali waaye yabal it daayira bu tarxee ñu ñëw ànd moom. sëriñ am seta di ko ànd ak mbooleem njabootu sëriñ Touba gépp waaye xam ngeen ne miin ngeen jataay bi ba bu ñuy dem ci kuréel bi da ngeen gis ne dana ànd ak mbokkam di xaritam di sëriñ Sidi Mbacke mu Cheikh Abdoul Khadir moo toog nii. waaye ku tudd euh, sëriñ Touba nag tudd yonent bi xam ne mm, mm, diggante sëriñ Touba ak yonent bi dara doxu fi woon moo taxoon sax weeru safar day taqaloo ak weeru gàmm loolu nag ñu ngi toog ak sëriñ Saliou Mbacke mu sëriñ Hamsatou mu dikkal ñi rek eh, baynal xadim wal maqdum te mooy diggante Serigne Touba xaadim rasul ak Moustapha sallallahu alayhi wa sallam su daaneelee Serigne Sidi dana ci yëkkati ay kàddu kon ñu déglu seriñ Saliou Mbacke mu Cheikh eh, Amsatou Mbacke mu Cheikh Abdoul Ahad. billahi min ashaytaan rajim bismillahi alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil anbiyaai wal mursalin wa maulana muhammadin al wa ala alihi wa ashaabihi wa xayri xadimihi wa ummatihi ajmain mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare bu baax ci barab bu tedd bii di kër sëriñ Touba di nuyu mboolem jullit yi nga xam ne ñu ngi teew fii ci barab bi ak mbooleem ñi nga xam ni itam ñu ngi ñuy seetaan ci mboolem site internet yi di jël suñ kaddu rek fi nga xam ne fi la sëñ Fallou Galass la wàccee kàddoom ndax noonu mu ko waxee rek fii nii ngeen gisee ñu toog nii ci ndigalul Cheikh Mouhamadinil Mountakha yàlla na fi yàgg lool te wér ci jotaay bi Serigne Sidi Mbacké ibnu Cheikh Abdoul Khader mi nga xam ne mook Serigne Hamzatu gaawu ak dimanche lañ bis doxuñ seen diggante ñu ànd ànd bu rafet ni seeni wajur yi ànde woon ci lislaam ci liggéeyal yàlla ci liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci toolub lislaam waaye ci toolub Sëriñ Tuubaa bi noonu lañ ànde moo tax lépp loo xam ni mi ngi koy def rek dana ko ànd ak moom ñëw na ànd ak njabootam gépp mu mel ni Cheikh Sëñ Fallou Galasse la wax na ko <coughs> daa yaakaar naa ren ji mooy fukki at ak juróom biñ ko dalee def ba léegi ndax ci jamonoy sëriñ Saliou Mbacké lañ ko tàmbali woon Serigne Saliou déclaration yam daan def daana wax ni Euh, sama kër yi ma am yëpp dama fay gàmm kon nag sëriñ Hamsatu mii nekkoon ci daari sëriñ Saliou daa fa gàmm gàmm yoo xam ni képp ku jaar ci daaraam wala nga yaroo nga yaroo ci keppaaram waaye wala sax ngay représentant ci àdduna bi xamoon nga ni diggan digganteem ak gàmm bu daan def déclaration màggal Touba da ca daa boole gàmm mu ñoroon ko lool <coughs> lool taxoon na sëriñ Amsatu mii nga xam ni yàgg naa gàmmu ci ay këri boppam waaye ca daara waaye mu dem ba mu xamal ko ni ko <coughs> kër sëñ Tuubaa gii dama laa jox ndigal nga taxawal fi gàmmu gi bi mu ko joxee ndigal nag defe naa gàmm na fi eh, ay at ci nekkuk sëriñ bi boobu nag xëy na dawuñ ko woote ak di ko fesal ndax woote sëriñ Saliou woote yëpp da ca daa duggaale moo tax gàmm na fi ñaari at ginnaaw bi sëriñ alhaaji Mouhamadou Lamine Baara moom itam ñëw yeesal ko Serigne Sidil Maxtaar yeesalaat ko euh, Cheikh Mouhamadul Mountakha yeesal ko ànd ko moom te léegi gis ngeen bañ fa jógee Serigne Saliou sëñ Amsatou wax na ko sëñ Mountakha ne ko ku ci mbir ba kër sëñ Touba ba borom borom fekk si ci loolu tawfeex la sëñ Mouhamadul Mountakha ne ko loolu it mooy liggéey bu nangu kon moo tax ñu daje fi di ñaan képp koo xam ne teew nga fi Serigne Touba lam ñaanoon. fa kullu man qad xadara mawlida sayid dal bara tabarrukan fa sa yaraa nu mu wooxu bil fatqami yàlla na ca dajeeg loole képp ku daje nee na képp koo xam ne teew nga ci bis bi nga xam ne guddi gi yonent bi alayhi salaatu wasalaam la maa ngi ñaan ngir barkeelu nee na sa xéewal dana yokk suñ boroom dana barkeel say mbir mu doon bis boo xam ne nag sëñ Tuubaa ahyaytu mawlidan nabi min asas ba mu ko tàmbalee def yàgg na lool ndax asas booba sëñ Maam Mor Anta Sali mi ngi fi waaye nag nekkug waajuram tax na ba lépp lu daan def ci ndigal la ko daan teg ak xaq sàmm xaq ginnaaw ba mu fa jógee nag mooy moo tax ba mu fa jógee ba ca déwén sa ca la ko njëkk a dundal ba ba ba ba ni nga xamee ni def dem na dem nañ ba ci njëreem nga xam ni xumb na xumb koo xam ni soxna commanda sax réer na ci biir ñu di ko wër di ko seet mu mu mu daa jël alali boppam ak ak ay sekki di tàngal ay kafe ak ataaya di dajale jàngkat yi xaside yi di leen ko jox ndax guddi gi màggu màgg ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa mel ni eh, lépp dafa nekkoon cig lëndam gu tar àdduna bi nekk ci ay jafe-jafe mu agsi di biddiw bu fekk leeral fépp ni ko imaamul Busayri yi waxee ni kayfa tarxaa ruqayika al anbiyaaw yaa sama an maata walatha samaaw lam yusaawuka fi ulaaka waxad haala sanam minka duunahum wa sanaaw innama massalu sifaatuka linnaasi kama masalan nujuumul maaw anta misbaahu kulli fadlin fama tasduru illaa an daw ikal adwaaw ma ko yow day dafa mel ni asamaan nga soo xam ni kenn mënta yëkkati ko ba agsi sa kaw maanaam da tiim ñëpp lépp ci sagoron la ne ni ko mboolem yonente yi ak awliyaaw yi dafa mel ni ay biddiw lañ woon biddiw nag bu nekkee ci addu ci asamaan si di leeral ba jant bi ak si euh, day noppalu ji ni ko noonu rek nga mel ni ko it dafa mel ni dangaa ne ca kaw tappe ci ndox mi ñuy di leeral lépp rek mu mel ni alayhi salaatu wasalaam leer googu nga xam ni moom la àndaale ci kaw suuf Serigne Touba leer googu da koo donn ba tax na lépp loo xam ni euh, yonent bi alayhi salaatu salaam indi na ko muy ci lislaam ci ponki lislaam li muy asaka muy aj makka muy weeru koor lenn lu ci nekk Sëñ tubaa liggéey na ci liggéey boo xam ni amul ku ko liggéey te keneen dootu ko ci liggéey loolu nag bëggum bëgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo waral lool ndax léppam da koo jël jox ko lislaam léppam da koo jël jox ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba àgg ci ay daraja yoo xam ni nit mësu caa àgg te nit xalaasu sa àgg looloo tax nag ñu baree bari ci jamono ji bu ñuy bu ñuy jàngale Serigne Touba ci bëgg gi mu bëgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam am na ci ñoo xam ni euh, mënuñoo mënuñ ko comparer ak kenn maanaam bëgg bëgg yonent bi amul kuñ ko mën a dendaleel cig natt ndax kenn ku ne da nga dara wala ngay bëgg nit wala nga bëgg ngay bëgg euh, ba mu teelaa nelaw waaye koo xam ni mosu mosu ñoo dégg ku wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni ko bëgg naa la bëgg goo xam ni euh, jël naa samay ñaari waajur jël naa sama dund jël naa sama ruu jël naa sama lépp jotoo la ko nga xam ne lépp loo xam ne nar na leen a dal na na na na nar na nar na nar naa dal ci kaw yan yonent bi sallallahu alayhi wasallam wala mu nar a daw ci ci lislaam yàlla na dal dal ci sama kaw loolu maanaam nit mësu caa àgg booy jàngale itam téere séeré yi yonent bi ñi nga xam ni dañ koy tagg wala ñi nga xam ni dañuy waxtaane ay jaar-jaaram ay wala ay mbiram dañuy tudd ay doomam di tudd ay soxnaam di tudd lépp lu ñu war a tudd ci moom loo xam ne am njàngale waaye Sëñ Tuubaa du tudd ci yonent bi lu dul la ab sëriñ di tudd ci taalibeem booy booy xool benn xare boo xam ni mës nañ caa gañe yonent bi du ko tudd boo xoolee amul benn xare boo xam ne dàq nañu mu tudd ko buy tudd ak njaboot tamit wala ay soxnaam bi ummina Khadija bi ummina Hafsa maanaam worma jooju nga xam ne moom la ko suñ borom wormaal da koo xam dafa xam dayoo ba xam dëgg-dëgg kan mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam jox ko àqam loolu moo tax nag yonent bi tànn ko ci ñëpp xam ni bi mu yëree xolam xam ni kii mboolem lu yàlla bind moo ci gën waaye bi mu xoolee xam ni mboolem mboole lu yàlla bind moo ko ci gën a bëgg gën ko cee sopp mu tànn ko jox ko jawrinam maanaam def ko garaatu yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu nekk di xayrul basar di ngën gi mbindéef gën ñëpp moo tax bi mu ne waladal huda falka falka inaatu diyaa un wa famu samaani tabassamun wa ana maanaam bi mu gënee àddina rek lépp loo xam ni dafa nekk ci kaw suuf si lépp loo xam ne dafa nekk ci kaw mbindee fi lépp loo xam ni yaa ngi yaa ngi dund moo xam jamaadaan nga wala ya yàlla dala defal tawféex ngay sabal di sekkar ci guddi gi loolu tax na nag sëñ Tuubaa wax ni képp koo xam ni yaa ngi dundal guddi gu yonent bi alayhi salaatu wasalaam mel nga ni ku fekke xare ya yonent bi alayhi salaatu wasalaam xare yu mu mus a fekke fekke nga ko maanaam xare bu mu mus a def rek fekke nga ko te bokk nga ci ña nga xam ni dañoo ànd ak moom xare ba ba gañe ko te képp koo xam ne jël nga ci jël nga ab dërëm def ko ci moo xam ndawal la wala nga jël lu mel ni suukar wala yeneen yu ni mel nee na suñ borom goreel na la ci sawara te ëllëg yowmal xiyam am ngaa bokk ci suhadaa ya mooy ñi nga xam ni euh, seen deret dañ koo jaay jox ko suñ borom maanaam dañoo jaay seen deret ci yoonu yàlla yàlla toppatu leen dara nga xam ni dama jëlale ay ña taq ci ñoom waaye soxodaaw ya wax nañ ni kenn ku ci nekk da nga da nga ràmm ñeen fukki junni nit ñoo xam ne sawara yey na leen yonente bi wax ni képp koo xam ni Sëñ Tuubaa wax ni képp koo xam ne bokk nga ci ñiy dundal guddi gi nee na suñ borom dana la boole ca ñooñee loolu nag moo tax njabootuk Sëñ Tuubaa gi xamoon dayo bi guddi gi am xamoon xaq yi ji nga xam ni bis bi am na ko ñu jël ko jox ko ko fépp foo xam ni kër Sëñ Tuubaa nga fa boo demee ña ngi ko fay dundal dundalin woo xam ne ñàkk gee woote it euh, xëy na dañu liñ ci jublu ñoo ko xam waaye gëm naa ni li ëtti kër Sëñ Tuubaa yi di dundale gàmm buñ ko feeñaloon buñ ko fesaloon lu baree bari dana nëbbu te loolu mur yi xam nañ ko ba tax na nag sëriñ Hamsatu mii nag nga xam ne yàlla dogal na sëriñ bi jox na ko ndigal mu di ko dundal fii ànd koog njabootu Sëñ Tuubaa gépp yàlla defal na ko tawféex mu jëloon léppam jox sëñ Tuubaa jël ak dundam seeyal ko ci liggéeyal sëñ Tuubaa ndax taalibe lay wane ak pas-pas ak yitte ak pësteef lépp loo ko mën a wan lu dul sëriñ Tuubaa soxlawu ko lépp loo ko wan lu dul yoonu murit soxlawu ko ndax dafa jaayanteeg sëñ Tuubaa ba noppi lam jaayante woon ak moom gis na ko ndax daf ni awratu saahatakum fal qasdu xidmatukum yaa layta arjihu saa vawsin bi inaami bi muy dem ci daari sëñ Saliou loolu la waxoon ne ko man de ñëw naa ci sa ëtt bii te li ma fi indi mooy liggéeyal la alxasdu mooy li tax a jóg nit nga xam ni jënn yitte awma ko judul xedmatukum mooy liggéeyal leen waaye nag lam ca teg mooy yaa layta arjion ak a neexoon su may wàññikuwaat bu may ñibbiwaat bu may bàyyikoo ci yow sa ëtt bi yow Serigne Saliou saa fawzin bi inaami ma ma ma laq ay xéwal laq ay ngëneel xéewal yooyu nag suñ borom feeñal na ko tey ndax xéewal gi gën a rëy mooy soo wootee say bokk ñëw ci diine ji saa yooyu saa soo yëkkatee sa kàddu ñëpp jaajuwaat ñëpp xamaat kan mooy sëñ Tuubaa te saa yu lislaam jaaxlee wala yoonu murit saa yuñ jaaxlee woo la soo yëkkatee sa kàddu rek problème ya dana réglé wu loolu xéewal gënu ko xéewal féetewu ko kaw te tey jii euh, bari na ay jafe-jafe yoo xam ni nit ñi ñu ngi koy dund wala ay problème wala ay ñuy jànkonteeg ay coono yu baree bari jënn yitte képp képp wala li ko maanaam sabab yi yëpp yëpp dara warulu ko lu dul bëgg àddina ak ñàkk ñàkk ngër ñàkk am ngërëmal waaju baax ñoom ñi nag nga xam ne suñ boroom gërëm na leen nga xam ne mooy njaboot ak suñ tubaa gi làq nañ ay ngërëmam te eh, ngërëmul Serigne Abdoul Ahad ngërëmul Serigne Saliou képp koo xam ne làq nga ko yaakaar naa ni su fekkee ni roy nga ca moom lu mu tuuti tuuti da nga gindiku kon bi su mel nii ñun bu fekkee ni ñi ngi koy teewe la ca war a gën a doon suñ yitte la ci war a gën a doon suñ pas-pas mooy delloowaat ci njàngaleem Serigne Touba xool ñoom ñii nga xam ne seen itte yëpp seen pas-pas yëpp mooy Serigne Touba Serigne Sidi mii nga xam ne moo Serigne Abdoul Khadir ak Serigne Hamsatu mii nga xam ne ñoom ñu ngi ci jotaay bi kenn ku ci nekk boo royee ci moom wala nga delluwaat ci Eh, aw doxinam wala aw melokaanam dangay mën a moom da ngay mën a gis ci moom sëñ Tuubaa lii waral nag ñuy tudd ñuy tudd seen i jëmm dañ koy wax ndax guddi yonante bi fàttaliku yonante bi moo ko tax a jóg yonante bi nag boo koy fàttaliku nit da ngay xool la la gën a jege nga jël ko def ko référence kon sëñ Fallou Galas lool la nga xam ne loolu mooy li nga xam ne yaakaar naa waroon nañ ko cee mën a eh, sànni ndax bari na ay bokki taalibe ak ay boroom xam-xam yoo xam ne teew nañ fi bëgg cee def référence la gërëm. tey ñaan képp koo xam ne teew nga fi suñu borom defal la tawféex defal la ndimbal ci barkeb sëriñ su baax si ñuy ñaan suñu borom yàggal leen fi lool te wéral leen defal leen li nga xam ne bëgg nañ ko ci ñun yéene nañ ñu ko ba tax ñu woote lii yàlla defal leen ko ci ñun ci barkeb sëriñ Tuubaa ñoom itam yàlla yàggal leen fi ba liggéey bi ñu yenu di liggéeyub sëriñ Tuubaa ñu àggale ko fu kawee seen jort bi barakati Cheikh al Xadim